salaamaaleykum internetu Sénégal tey ñu am mbégte dalal fi koo xam ne nag tàmmuñu ko gis mu Amadou Ly mais il est un peu connu sur le plan international mais Sénégal xamuñu ko bu baax ku seetaan Twilight xam naa euh, di nga ko xàmmee ma bàyyi la nga nuyoog internet yu ñuy seetaan. salaamaaleykum euh, Sénégal thank you bi sama mbokk yi. Mm. dégg nga olof bu baax. bu baax kay bu baax. <laughs> ah tuwaay laay ba jàngal nga leen olof. jàngal naa leen euh, pël. pël waaw jàngal naa tukkuleur. quoi ah d'accord làkk ak olof anglais. non non damay cooñ rek ma <laughs> nga présenté wu pour ñu la xamul fii Sénégal ñu lay ñuy suivre moom euh, série yi wala wala film américain américain dinañ dinañ la xàmmee mais ñu la xamul booy doon présenté tey lan nga may wax. Um, so man ñu ngi gën njëkk xam ci wàllu um, robotics so 2006 dama def uh, prix robotique uh, concours robotique ci laa ka gagné après ci noonu ci la ay uh, people like Hillary Clinton and um, Angelina Jolie and a of those people mm. ci lañ ma gën a xamee quoi ci la ci la ci loolu commencé après ci la move Hollywood ba um, mu move Hollywood like man maa ngi dem États-Unis ba ma amee so ma demee treize ans uh, après seize ans ci la commencé am problème immigration après ba ma dix-huit ans ci la participer concours robotique bi ba ma ko defee mhm. uh, ma sama équipe gagné prix robotique bu New York so and then after that New York Times mu journal yi daal di koy publicité après ci la blow up around the world um, ci noonu ci la président Wade at euh, Hillary Clinton at ñu uh, came to my rescue and helped me so man ba mu jógee foofu that's when I moved to Hollywood après commencé pursue acting um, acting commencé nekk jàng pour. quelle année ñaata ñaata at nga def um, like I started was yeah 2009 laa commencé entraînement. you know. Um, and then ba ma move Hollywood ci laa euh, def sama film bu. bu njëkk njëkk. 2011 mhm. sa ban film moo njëkk bi nga njëkk tournage bi nan nga demoon def démarche yi ba nga am ko. Um, uh, it was just casting, casting. Them, them casting. audition, just like uh, come come mhm. um, and then uh, Chilako Chilako Def mi ngi boobu maa ngi ko shoot New York mi ngi tudd The Thief sàcc bi. d'accord um, <laughs> ba nekk woon sàcc bi rek. maa doon sàcc bi. <laughs> ok um, but then yeah after ci la tourné yeneen film yi demee noonu. d'accord ba nan la la duggee acting bi danga toog xëy xam ne mën nga ci def euh, carrière wala bokk lan la la filee passion la wala. Um, you know Angelina Jolie at Brad Um, ba ma amee problème immigration. ñoom like they came to my rescue dañu ñëw to try to help me you know bu ñu ñëw ñoom ñu may invité ci like seen seen fi ñuy jouer film right so may mm-hmm. dem Universal Studio at all at place all these different places après ci man I really like this lii daf ma neex so but acting dafa nekk loo xam ne an koy entraîné donc doo ko jël doo ko mën du yàlla la ci may may su fekkee entraîné woo di nga yem da nga yem rek ci benn niveau so ci laa commencé. Mhm. Euh, training dem school um, mais lu mu ci gënoon neex is like you know da sàcc pour jouer caractère yu nekk you tey mhm. mën nga bés bés mën nga ñëw nga nekk politicien bés ñëw nga nekk journaliste you know saying bés ñëw personnage yu exactly so I really like that I really like that I get to do that. yaa ngi tudd sànq Brad Pitt Angelina Jolie ñooñu acteurs yu mag lañu aux États-Unis nan nga def ba xam leen déjà ba am approche ak ñoom. Um, si sama problème immigration yi la woon donc mm-hmm. boobu ba ma ma ma xam lu yàgg depuis like I think to 2006 um, so. Euh, ba congrès amerique jugee pour jàppale ma pour ma toog États-Unis comme que dañ ma naroon rapatrier. nan mhm, moo ah, immigration daf ma jàppoon pour rapatrier ma. parce que dama demee ba ma amee 16 ans dama am problème immigration. d'accord après immigration daal di may jàpp donc ba ma amee 18 ans fekk ñu ngi may waaj a andi Sénégal. concours robotique bi tax ba. New York Times maire Bloomberg bu maire New York bi. Mhm. Um, Hillary Clinton. Um, Ted Kennedy frère John F Kennedy all those people and congrès Amérique bi daal may jàppale quoi ci noonu ci la ñoom Angelina Jolie mm-hmm. aussi ñëw donc depuis boobu laa leen xam. boobu nga leen xam. boobu tey ngeen am rapport ak yooyu ba ñu am influence. nga oh yeah yeah they have big influence in me because commencement bi you know dama doon dem di laajte di leen laaj you know. même ci wàllu ni ngay gérer wàllu succès you know um, fame. siiw you know saying so mm-hmm. um, yeah. mais mosoo def école école euh, formé wu en métier de cinéma. ah si si you know loolu moo jiitu you know because depuis 2009. d'accord depuis 2009 you know um, école yi nga xam ne ay Brad ci um, école yi nga xam ne ay Halle école ji nga xam ne daal maanaam école bu gën a mag ci Hollywood daal ci laa mhm. ci la jàngee. médecine maa ngi gis. Uh, foofu nga jàngee alors Sénégal aux États-Unis nan nga doon xoolee fii métier cinéma wu Sénégal. Um, you know sooy ba may nekk fii like am 13 ans avant may dem you know it's like. mu doon seetla ay gelawaar. you know and inspiration boobu dafa ma dafa nekk sama mind ba léegi. Mhm. you know I'm saying ba muy. like he, he was such a great performer um, so ma ko dama ko admire on quoi because seen cinéma loolu la day day day jël day jël euh, verre seetu mu daal di teg ci société bi lii mooy société bi so euh, you loolu dañ ma doon inspiré ay max maxuru juge mm-hmm. yeah mm-hmm. maxuru Golbert Diagne you know saying Ibra Italien all those people yeah exactly mm-hmm. so because man when I was young, when I xale loolu laa doon seetaan. so uh, so yeah it was a big inspiration for me. d'accord euh, film Twilight kenn dootu ko présenté Sénégalais yi xam naa ñu bëri seetaan nañ ko nan nga def ba dugg ci film bi ci casting bi nga choisir. Um, Twilight <laughs> Twilight dama dama gis Facebook sama benn xarit bind ne um, Twilight ñi ngi xool benn. benn acteur bu spécifique mais acteur tubaab la ñuy xool at bu asi man xamoon na Twilight it was that pour man comme beneen film rek because soo xoolee dëgg-dëgg ñun suñu fans si euh, tubaab ñoo ci ëpp you know what I'm saying ne ah, ah, ah sama agence bi ma ne sama agence bi listen Twilight ñu ngi kii xool benn kii um, bëgg naa dugg mais moom gëmul woon ne you know mën naa mën mën naa ci dugg mën naa jël casting bi man nag ay well you know just xoolal loo mën a def quoi you know saying so faale wu ma ma ne waa baana après couple of days later ma call ko ma ne ko listen Twilight I need to get in dama bëgg dem ci casting bi faale wu ma muy troisième fois bi am naa mu ne xaaral kii xaaral ma ma ko you know what I'm saying ma mm-hmm. daal ok mën na ñëw so am naa ne moom xalaatul woon naa ko jël so ma dugg ma entraîné you know what xool def samay recherche like I remember it's like five days before avant cinq jours avant like audition bi like génn ma sama kër you know dama jënd lekk lépp toog di seetaan film yi di xool book yi di xool what I needed to know about the character mm -hmm. so when I when I went in ma demee ci casting bi it was it was um, I was ready pare dama pare woon mm-hmm. um, you know maa ngi fàttaliku casting casting agence bi uh, you know <laughs> mi ngi doon bëgg a waxtaan mais ma ne ko saa waay ainsi you know I'm saying <laughs> taluma nañ wax après you know I'm mm-hmm. saying so mais ba ma génnee mu defee casting bi and after I got, um, ci laa ne ah, yàlla mën na ci def jàmm you know I'm saying so ok noonu nga dalee ñu jël la ci casting bi nga joué ci yeah mm-hmm. yeah and sa premier tournage ak euh, équipe bi est-ce que gëmoon ngoo ko déjà que que jël la. dama nervous woon mhm. parce que ñu ngi ko joué euh, maa ngi dëkk LA right Hollywood so ñu ngi ko joué Louisiana. so maa ngi fàttaliku euh, <laughs> dugg ci Marriott hôtel bi. Mhm. ma duggee sama gauche ci hôtel am na bar. Mhm. muy dégg ay ay baat yu bëri you know what I'm saying so man lii moom kii na de. ma dugg def nii ma defee nii rek gis euh, som ñi nga xam ne star yu gën a mag ci ma leen di xool noonu ma dundawaat ma ne oh man this <laughs> so after après man a ah, ma dem sama nekk you know what I'm saying ma dem sama nekk teg sama bagage xool sama bopp ci verre bi naan Amadou ah, non mën nga ko. mën nga ko mën nga dem. afrodé <laughs> am problème voilà voilà yow yàlla jàppale na yéen may wax sa mm. bopp quoi. you know ngay ngay kii sa bopp daal. exactly sa bopp. exactly man because it was I mm-hmm. was I'm nervous son. Mm-hmm. so and um, après mm-hmm. euh, ma wàcc ndànk ci baar bi quoi. ñëw maa ngi nervous son mais nag xaram ma jàpp caractère ñu wax ma si sax na ngeen def ñuy jàmm ñoom mi ngi naan pum pum pum. Mm-hmm. <laughs> Uh-huh. Um, mais après you know sama gaal ñoom ñëpp sama gaal lañ mujjee doon so après ñu joué pour joué pour deux mois. Um, parce que dafa dañoo amoon euh, battling scene seen bu ñu doon xeexee. Mm-hmm. Euh, moom la ñuy wane. moom la ñuy wane si so scène boobu ñu ngi ko tourné deux mois. yeah seen boobu kese seen boobu kese ñu ngi ko tund deux mois you know what so it took a long time so you end up becoming friends mm-hmm. um, so it was fun jàng naa ci lu bëri aussi uh, jóge ci dem you know nga Twilight film bi nga xam ne àdduna ñëpp a ko xam uh, waaw ñëpp ko um, xam mm-hmm. foo dem you dañ lay accueillir you know foo dem fu ma dem mën naa fa def classe du Sénégal kese dëkku ma dem na leen dama bëgg a def classe dinañ mën a ibbil seen bunt you know foo dem di nga fa am ay fans yëpp daal ah si you mhm. know um, all over the world all um, know foo dem bëgg a gis kilifa you know dina la jàppale you know what I'm donc mhm. macha allah yàlla yàlla loolu moom yëfu yàlla la ko mhm. parce que ñu bëri bu ñu seetaan euh, mm, film bi gëmuñu woon sax sénégalais mu ngi ci film bi. est-ce que jot nga ay retour yu mel noonu. yeah a lot of times ñu lay poser question est-ce nga est parce que loolu rumeur boobu amoon na tamit. a lot of times um, you know man damay dilat loolu you know it's like people say est-ce que moom sénégalais la you know what I'm mhm. saying but you know uh, dama gis ne rek um, pourquoi you know what um, ñun Sénégalais kenn gënu ñoo muus kenn dàquñu kenn ëpp ñu talent. Mm-hmm. so why not um, yeah suñu jàngee mën métier bi. Mm-hmm. gaw ma ne am na ku ñu ci mën a. Mm-hmm. parce yàlla yàlla baaxe nañu xam-xam baaxee nañu ay maam yu baax you know what I'm saying so um, nag euh, ubbi fi benn école de formation explique ñu un peu bi nan la ñëwee. président Wade dafa um, dafa ma mës a wax may ñëw Sénégal you know um, depuis 2006 ba may jàppale si sama school bi mhm. ma promettoon ne ne ko sama paree dinaa ñëw you know um, so mu jàppale mu ci ay financier and everything mhm. so te loolu xaalis si sénégalais la you know so man pour ma ñëw du question sama bopp dama ko I own it my people maanaam dama ko Sénégal dañ ma lebal. dañ leen fay bor. waaw dañ ma lebal. Mhm. te dañ ma lebal fayaguma leen ko. mais mhm. maa ngi jéem. so um, loolu la ko c'est normal pour yow. comme sénégalais euh, te lu ma la wax it's not it's not du du du blague sénégalais ñoo ma fayal sama jàng. Mhm. so ci xaalis Sénégal la. so man fu ma egg aussi. I mean du Sénégal kese mais aussi ñoom am nañ ci part. so fu ma egg aussi ñun suñu mbokk yi dañ ci am part. Mhm. so lu may def nii dafa sama devoir laa def at yaa. Mhm. école bi nan lay demee euh, ku bëgg jàng ku fa bëgg ñëw tamit. Euh, yan um, ku bëgg a jàng mën nga dem ci Instagram bi sax suñu page Instagram. Amadou Ly studio. Mm-hmm. Um, soo demee uh, sama soo leen bindee sama staff yëpp ñu ngi pare pour recevoir nit ñi. Um, aussi inscription bi ñu ngi ko def instant yi cent cinquante mille um, pour inscription yi ñu ngi essayer aussi liggéey uh, yenn organisation yoo xam ne dinañ jàppale nit ñi ba du ñu du jar wala lu ñuy fay du bëri. Mm-hmm. Uh, yooyu tamit ñu ngi ci ay tànk yooyu te instant am nañ like promotion yoo xam ne. Euh, soixante quinze mille ngay fay ele ko euh, trois cent mille parce que xam naa ne am nañu ko mën am nañu ko mënul. am nañu ko mënul. Um, mm-hmm. so so loolu la quoi mais aussi maa ngi def comme comme dimanche bi maa ngi def euh, master class boo xam ne c'est gratuit. doo fay mm-hmm. dara doo fay sax cinq cent wala cent francs donc. Um, dama ñëw pour sama xam-xam ba ma jàng xam-xam bi nga xam ne man maa ngi koy jàngal américain yi ma jàngal ko suñu mbokk yi. Mhm. su ko defee ñu mën a move suñu art ñu tamit. d'accord lan lañ fay jàngale exactement yan yan yan cours lañ fay. Um, you know xam nga a lot of nit surtout góor suñu nekkee xale chaque jour nga naan góor du jooy góor du jooy bu jooy so mais nga kooku maag nekk artiste. Mhm. léegi nga bëgg ne kooku caméra mi ngi nii scène ngi nii jooyal c'est impossible. parce que moom life yam yëpp dañ ko toj dañ ko dañ ko jàngal ne like you don't cry mm-hmm. so ñun li ñu dindi yooyu dañ ñëwoon ne artiste nga humain nga right te humain sa yaay su gaañoo du ci bari di nga jooy lu la dal su mettee ba metti même su fekkee da ngay jooy tëj sa buntu dinam know what ko def so dañuy dañuy jàngal nit ñi dañ leen a andiwaat back ci being human right émotion émotion mais nekk nekk humain quoi humain parce que society dañoo jàngal lu ci bëri dañuy kii dañuy bloqué lépp ñu naan seen so loolu ci la aussi ni ñuy caractère suñ la ko joxee ni nga koy break down ne dama bëgg ba ma genre Netflix suñu ñëwee Sénégal duñu duñu soxla sama genre yi ñu naan seen si ñëwee Sénégal dinañ xool si sénégalais acteurs yi ñu doy leen. doy loolu suñu ñëwee Sénégal dañuy naan amee macha allah ma ne am na ñu fi nekk jox lu macha allah mais am na fi nekk soxla nañ formation formation mais genre programme bi li muy def mooy if Netflix come to Sénégal they're able to dinañ dinañ able to ne Sénégalais yi dinañ leen doy ci acting. Mm-hmm. you know what mais surtout loolu su ñu ñëwee Sénégal sama genre la ñuy ut ñëw fay xaalis ay Omar Sy fay leen xaalis. Mm-hmm. ne leen ñëw ngeen joué comme que Sénégalais ngeen soo paree nga ñibbi. Mm-hmm. so dama bëgg dama bëgg renforcer renforcer Sénégalais yu nekk fii yokk rek ci lu ñu am. déjà mm-hmm. um, loolu mooy sama tànk quoi donc am na yu bëri yu ñuy jàng même accent américain um, like suñu su ko defee ay again ay production yu mag yoo xam ne ñi ngi bëgg ñëw fii suñu fi ñëwee ñoom dina ci mën a participer because am na production yoo xam ne day come over here mais aussi sénégalais yi am anglais bi farle wuñ ko te pour pour pour nekk international fii àdduna instant yi il faut anglais bi nga dugal ko ci français ñi ngi daw pour dem pour dem ku mel ne Omar Sy mi ngi dem Hollywood so il faut ñu ñu pare quoi ci ci côté boobu. Mm-hmm. aussi est-ce loolu dina leen permettre aussi si école bi ñu jàngaale anglais xool un peu. exactly voilà exactly um, te loolu loolu commencement bi kese la you know um, am naa projet ci ay projet ci biir. Mm-hmm. loolu mais comme que eggeeguñ fa damay dama dinaa commencer ci lii noppi ci loolu quoi. est-ce que am na ay acteurs euh, sénégalais yu la approché ñoom tamit pour euh, un peu parfaire ñoom tamit seen technique de jeu wala wala jéem a mm, kii euh, am yeneen nga jàngal leen boog ay acteurs yoo xam ne sénégalais day ñëw lañ approché la pour. si am na am na bu baax sax si ñu si bokk na si ñu gën a mag si ñu gën a mag fii mais xam naa xam nga rek gëm na dañ bëgg ma taxaw télé wax loolu am na. mais aussi lu may jàng ci aussi suñu mbokk yi aussi nañu yaatal aar bi quoi because because man soo xoolee ba xool dama ñëw fii pour joxe you know what I'm ñëw ma fii pour xëccoo you know pour so so it's like um, damay def lu ma def sama pare dem jeu ji sama film you know so um, bëgg naa aussi ñu comprendre loolu ne. Uh, nan la dañ la. est-ce que da nga benn expérience boo xam ne dafa. no mais dama xam nga it's like maa ngi jàng dama nekk maa ngi jàng lu bëri you sen ci ci kii bi because bi ma sama first time you know um, xam nga su fekkee da nga nekk celebrity chaque fois soo ñëwee soo demee ci dëkk dañ lay encadrer. Mm-hmm. right doo gis kii bi mais su fekkee da nga bëgg ne ok dama bëgg def lii you know saying sometimes am na ñoo xam ne. naan waa États-Unis la jóge ñëw fii bëgg ñoo. you know saying so. <laughs> Uh, te te demeewul noonu. you know yeah mais mais loolu la quoi. est-ce que yéexoo tamit euh, ñëw Sénégal est-ce que pour ñu gën la xam parce que film du ñëpp koy seetaan dëgg la Twilight ku ko wax euh, film bu mag la mais am na ñoo xam ne seetaan nañu ko xamuñu ko ak yooyu est-ce que yéexoo ñëw tamit Sénégal pour imposer fi loolu. non because du nekk heure am fii da ñëw fekk fi ay séries séries yu bëri nañ on critique noo noo acteurs am na ñoo xam ne dañ leen naan jeu bi des na et tout est-ce que yow tamit waru woon teel a ñëw pour jàpp ci affaire yi. non lu nekka time am. Mhm. nekk time am um, su fekkee da génn ci biti nii jékki-jékki rek rase sa tànta xam nga loolu. dëgg naan ah mais lii nu mu demee nii. Mhm. fekk heure loolu heure la. you know um, dama gis ne lu nekk time am so time time bi léegi la ma allow pour ma mën a def lii. Mm-hmm. Um, and that's it mm-hmm. alors euh, objectif à part euh, mis à part euh, bi est-ce que am nga ne loo xam ne tamit bëgg nga ko jàppale Sénégalais yi wala nga gis loo xam ne peut-être neexu la ci ci ci lu ñuy def ci milieu cinéma bi après nga. pour yeah um, ay kii yu weesu ñëwoon nañ fi at Afrokicks dal di jàppale suñu mbokk yi jox leen ay ay ay cadeau. you mm-hmm. know ay dàll fii ay um, d'ailleurs maa ngi ko defat Akon actually. Um, jàppale leen donc loolu ñi ngi ci waat pour luy ñëw. Mm-hmm. Um, aussi ñun lu ñu mën a jàppal quoi parce que am na yu ci bëri yoo xam ne day xew mais du duñu wax. xam nga ah, loolu laa wax chaque fois ma ne dañoo nekk ci génération moo xam ne um, ñun liggéey lañ xam. Mm-hmm. mais dafa am dañoo nekk génération buzz you know donc ñun ñii dañuy toog ci ginnaaw xool seetaan. you know what I'm mooy comme loolu tamit États-Unis dal dal na ko mais dal na Sénégal parce que Sénégal temps yi comme ça ñu ne kii day xar géej gi. Mhm. génération boobu lañ toll. <laughs> it's like it's like ba du ñu def pour créer buzz dañuy def def li ñuy def avancer quoi. avancer nit ñi suñu xamee baax na suñu xamul ça va because loolu la quoi it's like gén ba ñuy ba ñu may entraîner entraîner ñu moom ci côté ma def. buzz. buzz you know it's mm-hmm. like loo tax su ma ñëwee fii. gis buzz bi. buzz bi wala su ma ñëwee ñu <laughs> naan man listen da ngay ñëw da ngay ñëw nga def lii nga sol lii nga dawal lii it's like bro listen. baax na you know naa ñëw doot ma wax lu may relax naturel naturel mm-hmm. sol samay cerax lekk sama cere waaw you lu may nama lacciri noonu lacciri mm-hmm. you know what I'm saying it's like eh, so mais it's like dañoo nekk génération bu bu xaw a indice quoi boo xam ne imposé bi dafa it's too much it's dafay distract the work mm-hmm. um, donc loolu maa ngi ci woo tamit ñiy bëgg nekk acteur et ñiy bëgg nekk. maanaam acteurs yi daal en quelque sorte simple ñu boo ñëwee gis fii. non wax ma acteurs yi de. Euh, acteurs yi wax yi mais du Sénégal kese like même États-Unis parce que loolu Kim Kardashian. moo ko kii moo ko imposé. Mm-hmm. you know donc mais wàcc na ba fii. ok you know soo xoolee ay. ay dañuy plus ay ay Makhoury Diouga ay Golbert Diagne. Ah, all those people it's like ñoom doon sax gis. Mm-hmm. you know dañuy def li ñuy def dem liggéey dem tëddi because acting li ngay sol la soo paree nga simmi ko def sa vie. mais su fekkee da nga topp trying to do buzz all the time it's like it's too distracting. donc man loolu peut-être bokk na ci lu tax nit ñi xam because loolu du sama mind. Mm-hmm. you know du sama I don't I just don't have the time. you know and may turned off quoi. Mm-hmm. so mais nag am na ñoo xam ne jig na leen donc yàlla na leen yàlla jàppale ku nekk ku nekk li nga bëgg man mm-hmm. seetuma ci loolu. Mm-hmm. kon tey li nga lecture bii nga am euh, tey suñ la demande woon nga ñëw jouer ci benn film wala ci série sénégalaise lan ngay wax est-ce que di nga d'accord aussi. Euh, commencement bi doon naa ko considéré doon naa ko considéré. commencement bi doon naa ko considéré ba ma waxtaan ci am ñu nekk fii. Um, mais instant yi non instant yi pour l' instant loolu intéressé wu ma. Mm. Um, ah. honnêtement. côté finance finance la financière wala wala wala. non non. Um, amuñu sa fay daal. non du loolu. du loolu du loolu. du cachet bi. non du loolu. because instant yi man damay xool ñoom seen projet ñi ngi am ba pare nan laa leen mën a jàppalee bu ñu génne ko yóbbu ko. ok. you know ku nekk sa rôle quoi. ñu exporté ñu ñoom am nañ seen star am nañ seen bindkat am nañ seen kii dinaa xool nu ñu mënee jàppale ko defar ko leen ba mu nice man yoon bu ma am fële ma ibil leen ko ñoom ñu ci lu ma ci yàlla may. ñoom ñu xuus. xuus mais daa pas joué um, ci mais loolu su fekkee bés ñëw na like kii na su fekkee bés xam nga artiste moom mooy comme ki nga gis. benn xale bu jigéen nga bëgg ko. Mm. su fekkee gis nga caractère boo bëgg loolu kenn du la ci mën a. tey ah, ah du cachet yi rek moo tax nga daw. waa du cachet yi. non du cachet yi du cachet yi du cachet américain fay de <laughs> fii. dañuy <laughs> du cachet. naa <laughs> naa du loolu du ah, loolu. n'est-ce pas. du mhm. loolu mais. du loolu daal mais mais pour kii quoi pour dama gis ne fu mu mënee jàppale mooy. opportunité bu mu am Hollywood ak connaissance bu ma am Hollywood ak ñi ma xam Hollywood. Mhm. ñi ma xam ñi ma gis xam nañ ne pare nañ. parce que am na ñu parewul am na ñu bëgg fa xam naa ne pareeguñu. pareeguñu ñu pare mën na leen ñu naan opportunité ngi nii. Mhm. est-ce que yoo xam ne nag ñooñu pare nañ moom. Ah, yeah. Um, ñu pare nañ kii. anglais bee leen dese rek Gadji Gadji Ulima. Euh, Kadia Marème Dia. ah Marème Halima. Halima Halima. she is fantastic. Mhm. Halima is really good. kooku rôle boobu mu joué su ko joué woon États-Unis dina am awards. Um, moom laa xool ma ne oh man she's she's bad. je bien. she's bad. Um, mm-hmm. xaw ma ko nag personne mosuma ko gis. Uh, mais xam naa ne ci ci yooyu daal xam naa ne. est-ce que am nga série tamit boo xam ne gis nga koo xool nga ko nga ne série bi on peut l'exporter. Uh, yeah série kii bi série boobu xale ma nekk. maîtresse d'un homme marié. yeah série boobu série boobu I think I think parce um, que dafa funny daf ci dafa utiliser lu bari Mm-hmm. I think it was it well done. I think it's probably moom am na série yoo xam ne mën naa leen lim mais seen commencement rek moo nice après. après fin bi ñu kii quoi jalgati. après um, mais seen série boobu moom macha allah. Mm-hmm. après à part xalima amul keneen koo xam ne côté. Um, à part xalima. Jilo is good. ok Souleymane Golden. Gila Golden is nice. Um, Momo is really good mm-hmm. too. Uh, thank you. Um, oh, man, I'm not new neck sama xel mais man <laughs> question boobu daf may kii. you know mm-hmm. because am na talent yu yu bëri. it's uh, yu bëri um, yu fi yu fi nekk yu fi nekk. am na ñoo xam ne par kanam laa leen xamee. yoo xam tur bi ñoo xam ne du xam tur bi. Mm-hmm. Um, mais daal am nga espoir que suñu acteurs yi mën nañu exporter suñu cinéma. aussi ah, aux ah si su fekkee euh, genre bind mi gën nañ ko téye te aussi ñu falo ñu ñu ñu topp instruction bi. Mhm. instruction bi suñ ko toppee yeah parce que seen épisode yi dañoo gudd de. ay cinquante épisode ngay gis. ok you kon waaw moo tax jox leen quelques conseils yoo xam ne peut-être dinañ ci bàyyi xel. épisode épisode di ñoo gudd cinquante épisode is like. loolu uh, su fekkee dañoo bëgg structure Hollywood. Mm-hmm. laay waxee su fekkee structure financement Sénégal wala Afrique. c'est bon. the West good. mekkal sama mais aux bu ñu bëggee exporter. mais su fekkee da nga bëgg dañ yem ñaata épisode par exemple. <sighs> Prince ay huit Prince ay douze yu ci bëri douze you know, um, ay I, I power, power, fucking I do as I am. I, um, Game of Thrones, you know. But peut-être mais gëj naa kaa gis you know mais yi ci kii yi parce que lu muy def mooy day wàcce sa qualité sa sa sa story bi nga war a tell eh, da koy essayer guddal mm-hmm. right te guddal boo pensaay day dem ba ku koy seetaan looloo ma dal ci yenn série damay damay seetaan après ma ne dañ ko dañoo kii quoi it's too much dañ ko guddal te loolu baax na ci financement su fekkee Sénégal West Africa mais su fekkee da nga bëgg compete internationally it's not gonna work loolu du dox international du dox ok kon ñoom gars yi nañ ci bàyyi xel ak beneen conseil nga leen di joxaat tamit ñu bàyyi ci xel ñu ibbi ñu ibbi ñu ibbi wante it's too much it's no man it's it's it's it's um, ñu ibbi wante mais nag am na benn groupe bu ñu ma def euh, group kii groupe acteurs yi you know boo xam ne acteurs yu mag yi ci lañ bokk. Mm-hmm. loolu neex na ma trop. Uh, Sanekh aussi is really good Sanekh aussi is very talented. Mm-hmm. Um, moom yàlla daf ko may yomb yombu lante yombu uh, comedian like daf ko daf ko xam nga yàlla daf lay may moom yàlla daf ko may loolu yomb bi. Mm-hmm. he's really good. Um, you know maa ngi fàttali ay gars Lamarana you know saying those people are really good ñooñu déggatuñ leen sax. déggatuñ leen sax. Um, but mais mais mais ñu mel noonu loolu laa sànq ma ne suma limee day juum. da ngay juum am na ñu nekk sama xel. ok um, mais lu may wax rek mooy sama mbokk artistes yi nañ focus ci art bi. ok you know art bi su ci focusee man xam nga Denzel dafa ne da ngay spécifique da ngay spécifique ci angle France da ngay kii da ngay commencer. Mhm. viser viser boobu soo concentré mooy dem nekk. parce que man sama si sama kii dama viser rek dama viser woon rek entrainement entraînement opportunité ñëw entraînement ba muy jouer dafa mel ni damay entraîner ba léegi. Mhm. ci noonu la Twilight génne so nañ focus ci art bi um, that's what I would say focus ci aussi mais nañ also focus ci art bi. Mhm. nañ nañ focus on the art. Um, dañ koy gën a jox àkkam daal. ñee nañ koy jox àkkam te aussi gouvernement bi Sénégal amul structure amul lu ma fi gën a gis aussi mooy artistes yi artistes yi joxuñu seen gëdd Sénégal. amul ñu structure boo xam ne ku joué lii su fekkee judo dafa jóge golden war dem feneen minimum lii dañ ko mën a fay. Mhm. su fekkee dafa jóge golden dem beneen épisode dem beneen série minimum ni dañ ko war a fay. mu war a am ay barème dafa war a am ay kii. Mhm. aussi euh, jigéen ñi euh, nu ñu leen war a traité ci kii ci série yi euh, yu ci bëri daal am na mais gouvernement bi. gis naa ne structuré ko daal ba ku ne gis mhm. ñu ñu jàpp ci ci ci yu demee noonu parce que kii bi qualité bi mi ngi fi am nañ qualité. Mhm. am nañ aussi talent bi. Um, mais suñu gouvernement mën na leen gën a pousse aussi d'accord peut-être dernière question suñu série yi am nga ay peut-être yaa ngi ko doon suivre euh, fi nga nekkoon yaa ngi doon suivre série yi nekk fii ñu bëri dañuy leen ni wax xas wala bokk am yéen ñu teg seen dern genre euh, série bi dafa bëri ay euh, scène yu seen wala yooyu noonu yéen amu leen problème boobu aux États-Unis <laughs> scène yooyu lan nga gisee hmm, est-ce que cinéma toll na foo xam ne tey dañ ko war a critiquer ci lépp lu ñu war a mën a def ci xam nga la mooy liggéey cinéma. Mhm. right is mu jël mirror seetu wan ko société so wan ko society wan ko àdduna. Mhm. right so fii gis nañ fi ilimaan ñoo xam ne dafa dañoo ëmbal. right gis nañ fi ñoo xam ne ay nit yu borom doole lañ ñu jàpp ay drogue. Mhm. right so gis nañ fi. ñi nga xam ne loolu lépp ñu ñuy wane dañ ko fi gis so cinéma joobam mooy mu wan la exactement lan mooy société society society so gëw ma ne dañoo war a. Euh, war a dañoo war a euh, critiquer cinéma bii di ko wane dañoo war a critiquer société bii di ko def ba cinéma jot ci ba inspiré wu di ko wane. femme bi nga xam ne dañ ko violé mu bëgg. wan violé nan la ba mu wane ko kooku nu mu ko def fu mu ko jaar kooku waroo ko critiquer parce que dafa génne dafa génne pour wax la pour xoofali du dal keneen donc loolu man d'accord ma ci. d'accord because amul sens. ñu know what I'm jigéen ñi dañuy am ay far góor ñi dañuy am ay gal. Mm-hmm. you know um, it's like. mais est que waruñu adapté wu ak culture bi tamit culture sénégalaise xam yoo xam dañ koy nëbb wala yow d'accord loolu. waaw xam nga su fekkee na comme que dañuy adopté ay culture bi. Mhm. damay laajte rek est-ce man I think I think lu nekk am na limite. Mhm. because États-Unis am na su fekkee da nga def yenn scène yenn ñu am âge mënuñu ko seetaan. right donc dama gis ne structure bi noonu la gën a war a doon ñu am âge bi mënuñu ko seetaan comme ça di rated R la wala lii PG 13 ku am 13 and up at 13 ans at kaw mën na ko seetaan right waxuma rek ñu sexualize du question sexe kese mhm. mais ci question aussi ci affaire yu ñuy yu ñuy wax you know euh, gaañu ci bëri di ñuy liggéey di ñu wane góor jigéen bu xew fii ci dëkk bi duñ ko wane. Mhm. parce que ko dañ koy ragal wane parce que dañuy naan dañuy ragal nit ñi na leen dañuy glo dañuy kii. def promotion promotion góor jigéen. Mhm. mais man ñoo naa ci dëkk bi gis naa fi ay góor jigéen. ah. ah yaa leen gis. yes mm. ah si. you know. donc kon pour yow dañ ko war a di. te aussi su fekkee dañuy wax ci loolu mais nañ wax aussi ni muy commencé. Mhm. am na ay ñi nga xam ne ay mag lañ ñi ngi ci kër yi di làmb xale yi. xale yi suñu màggee seen lu leen seen introduire bu ñu bu leen bu ñu mës a am ci côté sexe góor la ñooñu ñooy màgg nekk koo jigéen mais nañ nañ nañu wax. nañu wax wala wane ko. yaa ngi comprendre et su ko defee nit ñi comprendre. d'accord so man foofu laa wax ne aar bi même su fekkee dañ ko téye noonu servirul servir du leen servir. xam naa ne nag dinañu mam de waaye. am daal yaa fi wax sa <laughs> ma bàyyi la nga tëj ak lan ngay wax euh, ñi lay ñi lay seetaan. Um, maa ngi lépp lu ma. Eh, wax école bi cher na de. lépp lu ma wax te jiwum. maa hmm. ngi jéggalu <laughs> euh, dama wax rek lii ma xalaat euh, te nit nit moom day juum. Hmm. di sant yàlla di sant samay waajur di. Um, sant sëñ yu baax yëpp ñu fi ñu fi ñu fi tëdd mm-hmm. uh, so di remercier sénégalais ci support bi uh, support bu ñu buñ ma buñ ma defal um, yeah that's it thank you est que acteurs américains yi ñoom xam nañ Sénégal sax um, am na ñu ko xam am na ñu ko xamul mm. mais rappeurs yi Akon def na job boo xam ne job bu fantastique la mm-hmm. parce que milliers milliers rappeurs milliers kii yi dañ seen xaw a kii mhm. dañ leen xaw dañ leen séparé Akon um, def na job boo xam ne bu naay sa boo xam ne rappeurs yi ci bëri xam nañ Sénégal international même sur rappeurs ñu bari xam nañ Sénégal uh, def na ci job bu bari um, ci wàllu ci wàllu boobu man tamit jéem naa ci luñ ma man ci wàllu Sénégal ñu xam ko ci mhm. Hollywood. thank you so much for the invitation. Thank you.